asalaamualeykum mbokk yi seen xarit seen doomu nday Amath Diouf moo dellu si ci tuuru ñi nga xam ne ñépp ñoo ànd taxawal liste tuddee ko ànd ak diaspora bi fas yéene dellu si léegi nag ñuy dugg ci li nga xam ne moom mooy sunu programme ginnaaw ba ñu leen waxee ni am nañu yéene ci kàttanu borom bi bokk ci jogante yi nga xam ne ñoom ñooy tànn député yi ñu tuddee ko élection législative wax nañ leen tamit lan moo waral ñu samp sunu nënd dañoo bëgg boo leen ñu wóoloo ba yóbbu ñu assemblée nationale muy pénc ndaw réew mi mu am programme yoo xam ne dañuy taxaw xeex ko bokk na ci yooyu programme lu ñu tuddee l'autonomie des organes de contrôle de l'État organe de contrôle de l'État nag boo leen ko déggee mooy kuréel yi nga xam ni ñoom ñooy saytu nu lépp loo xam ne état bi la walla boog mu takk ci état bi ñooñu mi ngi ci mel ni lu ci mel ni IGE ñu naan ko inspection générale d'État walla ñu naan ko cour de comptes wala ARMP wala yeneen bari nañu dañu ne ñooñu ñëpp at bu ne dinañ def ay liggéey yoo xam ne macha allah danañ dem fépp foo xam ne war nañ faa dem ngir mën na saytu liggéey yooyu bu ñu paree nag tënk def seen rapport jébbal ki nga xam ne moom mooy président la république foofu la mbiri di tagga témbe jébbal googu ñuy jël di ko jégal président de la république moom nag mu xool ban la ciy déclassifié ak ban la ciy daal di téye ñu ne loolu dafa war a jeex suñu bëggee suñu réew mi ñu koy doxal ci transparence suñu bëggee suñu réew mi impunité jeex fi organe de contrôle de l'état yooyu dañ leen di boole ñoom ñépp bugal leen foo xamee ni lu ci mel ni cour des comptes jox leen nag ndogal gu mat sëkk ne leen boo leen demee tee liggéey def seeni saytu ba noppi am ngeen seeni procureur spéciaux yoo xam ne ñoom ngeen di jébbal seeni dossier ñoo ñu dem tribunal nag topp ñi nga xam ni jàpp ngeen ni def nañ naka su noonu dama leen di jox benn firnde fu mu toll nii boo leen demoon ci website du Cour des comptes ngeen dem ci rapport 2014 page 96 97 di ngeen fa gis mbir mu doy waar mbir mu kéemaane mbir moo xame ni directeur général lu euh, impôt et domaine ba woon en 2010 moom moo lëkkaloo woon nag directeur domaine bu Tëngéej ak kii nga xam ni moom moo yoroon euh, lu ñu tuddee caisse de consignation et des dépôts boo leen liiree exemple boobu. ci benn transaction rek ci benn transaction maanaam jël suufu alal bi jox ko benn nit nit kooku wëlbatiku jaayaat ko nguur gi mu am ci cinq milliards Cour des comptes ne leen li ngeen di def tegu leen ko fenn IGE ne leen lii ngeen ko def tegu leen ko fenn ñooñu dañ leen waroon a topp wante kenn topp leen dañ leen bàyyi ñu dem ak alal boobu ñooñu leen bàyyi mi dem ak alal boobu lan lañ ciy am lu war a lu ñu mën a gëstu la lu ñu war a mën a xool la moo tax suñu programme ñu ne ñooñu nag nga xam ne léegi ñoom ñooy les organes de contrôle de l'État dañoo war a xeex def suñu këntalaay kàttan ba ñu am une autonomie de fonctionnement ak autonomie financière ci autonomie de fonctionnement boobu nag bokk na ci seen wàllu li ñu leen di tabbee ñu wàññi ci doole wu président de la république ba ñoom seeni biir ñoom ñooy fal magistrat boo xam ne xëy na mooy jiite bii kuréel magistrat buy jiite bële kuréel noonu bu ñu ko defee ñu am seen autonomie de fonctionnement am seen autonomie financière jàpp nañu ni impunité dana jeex ci réew mi wala boog dana wàññeeku lu baree baree baree baree bare ndax lu ñu waay mën a tabaxal lu ñu waay mën a jënd tey xamal ni yàq nañu lu ëpp lu ñu jënd loon wala lu ñu tabaxal alalu réew mi nag suñu buggee ñu sàmm ko bañ nag injustice am ndax lu ñëpp bokk mu am as compos bu jug rek ñoom di ko jëfandikoo loolu day daal di indi injustice injustice nag fu mu am si ngeen di dégg ay braquage yu bari si ngeen di dégg ay insécurité bu bari te loolu foog ñu xeex ko dès le début kon dañ leen di ñaan ngeen dem ci sunu website www point diaspora bi point com www point diaspora bi point com ngeen dem fii ñu tuddee lii ñuy programme sunu euh, maanaam programme bi ngeen di euh, proposé ngeen gis fa lépp loo xam ne ni ñun moom lañ nar a xeex mbokk yi xarit yi am di jàmm yi lii lañ leen indiloon tey ci yóbbal di leen jox rendez-vous semaine prochaine incha allah seen xarit seen doomu ndey Amar ci turu ñi nga xam ne nag ñoo bokk liste bi ñu tuddee ànd ak diaspora bi asalaamualeykum.